Est-ce que mën nga les grandes lignes de votre projet pour euh, le Sénégal Ah, xam nga tey ji projet boobu tey euh, mm-hmm. li ci liñ ci liñ ci gënoon a accentué wu mm-hmm. muy Sénégal waroon na dépassé tey fu ñuy waxee affaire tout le temps programme ali alimentaire waaw su ma koy faral di wax dama naan leen mm-hmm. Mantoulaye Diène dem si yàlla si bu dellu siwaatoon du du du du du réer ndax dafa naan la le du Kayor dafa naan le même noonu lañ ko tuddee le même discours laa fi fekkaat parce que mhm. ci moom laa ko daan dégg mhm. muy wax euh, autosuffisance alimentaire ak ñu mel noonu non ñooñu ay précurseurs la ñu woon nag mais moom ak Adja Aram Diène maa la wax lii donc xam nga kon donc tànk yooyu su su amee mhm. ci dëkk boo xam ne am na plus plus de 4 millions d' hectares de terre arabe. Mm. Euh, am. Euh, ndox euh, ndox am am am naaj. Hmm. ndax gis nga ba ñu yegsee maa ngi lay wax naan la tàngaay daf may xaw a sonal léeg-léeg. dëgg donc yooyu yëpp bu amee ci dëkk. Mhm. nit mu kon ba léegi ci deux mille vingt quatre di wax affaire autosuffisance alimentaire. dafay mhm. doy waar. beneen bi ci nekk pour wax la rek ndax xëy na jot bi du maye ñu jukki lépp. Mhm. dañ koy waajal pour beneen. beneen bi yem ci benn. mais li nga xam ne moom la ñuy wax ci daar parce que Sénégal dañuy suul daanaan. Hmm. je suis le seul candidat bi dans taxawne ne su ma réew mi ku wàccee kamil ma jox la baccalauréat. ah wa lol nak innovation la naroon nek parce que fi dañu japp ni. euh ko euh, jangul école française rek analphabète nga. les les les plus intelligents. moy hmm. ñi génnee daara. waaw parce que nag alxuraan mémoriser ko yombul de. te nga gis ku koy bind. ba pare te ci xoolal ci bi ñu koy mémoriser. Mm-hmm. tey jii ñun ñi nga fi woo ñëpp ñu naan ay docteur ak professeur. kenn mm. mënu la ci réciter benn livre bu mu bind wala boo xam ne. gis na ko boo leen lire loowee arab jommi de. non waxuma la arab sax alxuraan ñu ñu ñu ñuy jàng. Mm. ba ñu ba ñu jox ñu ci ay ay grade. Mm. jox ñu ci ay ndommal tànk. Mm-hmm. kenn ci ñun mënul taxaw réciter la ci benn livre boo xam ne dix pages lay def. donc xale bi def loolu mhm. nekk na koo xamee ne tey c'est un intellectuel mhm. nekk na doué euh, d'intelligence koo xamee ne euh, c'est un surdoué mhm. il a un QI exceptionnel donc euh, c'est un HPI c'est un haut potentiel intellectuel très bien Sénégal nag jël loolu yëpp suul ko li taxoon may xeex te ba léegi moo tax may xeex ñooñu laa bëggoon ndaanaan yooyu Sénégal suddi ko ngir gën ko mën a jëriñoo on va vers, vers, vers un monde où mhm. la finance islamique va dominer le monde dans les années à venir. Nous avons une potentialité pour Si nous avons di leen defloo ay waaraati télé on peut les transformer Nous ji ñu de de très grands experts financiers en, matière de finance, islamique. parce que am zakat la non zakat rek. Mhm. dans la finance normale finance mhm. internationale. Mhm. Donc, koy dans la finance islamique. parce que zakat ce n'est rien d'autre que de la fiscalité. Ah, quelque part. c'est de la fiscalité. sur le école mais mu toog di la ko xal noo xam ne un expert fiscal mënu la ko wax waaw ça c'est vrai loolu ci conférence weeru koor bi nga koy gis te te te da ngay ñëw wax leen ko la veille pour le lendemain ñu toog wax la ko ñu tajal la ko waxal la lépp waxal la lépp naka la ñuy miraasee lépp dañ koy dañ ko maîtriser euh, euh, ñu ñëw ci affaire astrologie mhm. mais c'est des sciences pointues li nit ñi war a xam mhm. alxuraan mhm. du du du làkk c'est une connaissance kon ñi xam ne tey jii dañ ko dañ ko dañ ko këru. Mhm. dañ ko maîtriser. Mhm. na c'est-à-dire dañu am nañu xam-xam bu reuy bu nek ci ñom bo xam ne. Mhm. boo leen ciuké tout rek bu boba dana dana dana ñu jëriñ réew mi ci no xam ne. luy luy doy war la. ñun programme bi ñu tegoon. ki génn dara à 20 ans il fait son doctorat 20 ans. muy no ambitieux lo xamné vraiment dinañu amal njëriñ nak nous sommes une société musulmane ça aussi il faut l'assumer voilà nous sommes une société musulmane qu'on kon que euh, vraiment euh, amoon naa plaisir euh, doyalu ma nag temps bee ñu tënk mais yoon yemul ci benn